maa ngi lay fay euh, di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetal. mooy lan nga jàng ak woote bi ñu

jëm ci wàllu promotion Jeux olympiques de deux mille euh, vingt quatre loolu je pense que ndam la ci làmb Sénégal ndam la ci Sénégal yëpp waaye ndam la également ci Rock Mbala parce que la euh, lutte ñun euh, li nga xamni mom lañ ci xam moy kenn ku ci nekk ci ñun buñ la laajoon ñaata prise nga xam ci lamb yaakar na ni bo limé juróom wala juróom benn doto ko doto ko wess mu mhm. nit démé nak bané euh, tay gis na junni ak ñeent ak lu top ci ay prise lolu mëna jaaxal lu ne mais bu fekké ni daf ko bind décortiquer ko prise bu nekk mu wax naka lañ koy defee loolu dafay wane ni Rock am na lu mu jàng ci carrière am te carrière dafa commencé si mbappat dugg ci bëre dóor waaye dem équipe nationale ci wàllu lutte africaine dem équipe nationale ci wàllu lutte gréco-romaine donc bëri na ci suuf bëri na ci tapis dem na Jeux olympiques xam na euh, tey Euh, lamb bu ci nek yan technique la lay xëy technique yoy nga xam tay mom la doon utiliser ci différentes formes de lutte yi la bëgg jël baxé ko wa akhlu lamb parce que tay ku ne xam na ni ci walu lamb pour jàngal nit xëy na écurie ba nga koy jàngale wala école de lutte mais téré bu nga xam nit mën nako ko yër pour xam lamb Sénégal nan lañ koy défé prise sangam nan lañ koy appliquer lolu amul donc lolu damay wax né euh, l'histoire retiendra Korok Mbala premier lutteur bu nga xam Beaucoup pour promotion Jeux olympiques euh, de Paris mais premier lutteur bu nga xam Nafi, pour la postérité et pour les générations futures même pour entraîneurs Ah, dinañu am soubassement maanaam dinañu am téere bu nga xam ne niñ ci mun a jàng wala jàngale ci lii nga xam ne mooy làmb. macha allah am na solo léegi nag euh, Grand Malick dañoo nekk ci benn combat boo xam ne combat bu bëri coow. muy ñoom ñaar ñu toog cinq ans bëriwuñu. ñu dem ba yërmande na yërmande boo ko déggee mooy nit ñi yërëm na mooy dañoo war a bëri fàttalikoo ku ne xooli leen ndax du avantage yu ñaari mbir du avantage promoteur du avantage yu seen si bopp saa bu ñu jàppee signature dafay du am bi ba ñu yóbbu ko ba Gambie affaire def nañ dîner de gala bu neex nag macha allah mais ci génn ba fa ay jotaay yi noo amee affaire yi mooy noo gisee combat bi d' abord promoteur bi nga xam ne moom moo ci duggoon xaalisam boobu ba léegi muy traîner ak combat wax nga ko lu mat pratiquement cinq ans nit ñi ñu ngi toog euh, mu am ay gàllankoor yu bari yu ci am. di également massawu mbër yi parce que mbër bu sañoon dafay bëre libéré wu dem wuti leneen mais ki nga xam ne tey moom moo ci moom laa ci gën a yërëm mooy Ama Baldé parce que Ama day ndaw toog lu mat juróom-benn at bëriwul loolu baaxul ci carrière am li nga xam ne moom moo ko doon gën a arrangé mooy mu bëre ak Modou Lo tàggalikoo ak moom dem wuti ji leneen mais gis nañu péripéties yi nga xam ne am na ci combat bi yëpp ba indi ko tey mu toog six ans def année blanche Modou Lo depuis mu jële le titre de roi des arènes remettre ko en moom tamit mu toog pratiquement cinq ans yu nga xam ne bëreewu ko tey bu ñu demee ba combat bi saa bu ñu wootee euh, ndaje mu yàqu loolu ñoom kenn ku ci nekk war nga xoolaat sa bopp war nga waxtaan ak sa waa kër parce mbir mi làmb la te dafa am partie bu nga xam ne mooy la partie promotion du combat te promotion du combat contrat la bu nga xam ne yow yow mbër mi sa manager dafa ñëw signé ko mu am différentes rencontres yow war a def pour jaay combat bi donc loolu dafa bokk ci li nga xam ne tey euh, yow da nga ko war a jël mu nekk sa sas nga war ko def remplir sa contrat ba su bëre ba jot ngeen bëri loolu waroo nangu kenn di la ko yàqal je pense que lu ci ëpp du ci mbëri ci seen bopp mais ci ñi leen di accompagner ñoom ñooy indi fitna jooju waaw darmaan yi fit fitna ji jaru ko yow bëre woo fay ñu la wax dëgg yàlla bu yàqal mbër mi teranga am man tey micro bi nga xam ne ci laa am suma teranga du ma nangu kenn di ma ko yàqal su fekkee ni mën nga ànd ak man nga muñ ma def lu may def ñuy ànd bi nga ànd ak man bu fekkee ni yow nitu fitna nga saa yoo ànd ak man histoire ngay indi ma teg la ci kër ga ni la bu ñu topp parce que aussi mbir mi aussi il faut et rien ne l'explique niveau Ama Baldé ak fimu tollu ci nouveau war nañu dépasser di am conférence de presse bu mën egg di am face à face bu mën egg donc tay lu yàq lam warul joggé ci ñom te ñom ñom ñoy ñom ñoy yilif ñi nga xamni ñom lañuy andal ce sont les principaux acteurs ñom ñoo signé sen ay contrat donc ils doivent mettre de l'ordre dans leur encadrement ñi leen di and ak ñom nañu and ak dal xamni mbir mi ci bëss ba la tey jii ànd ak yar and ak dal xamni mbir mi bëssu combat ba la bu ñu tëjee barrière yi lu mu mënal Ama na ko ko def Ama ku ko mënal Modou Lo na def ku mën sa morom duma je pense que egg ci loolu moom moo gën et aujourd'hui euh, bu ma doon man conseil ama sax laay gën conseil ah parce que waaye parce que ama laay wax ni ko ama euh, tey Modou ak nu mu mënti demee moom mooy sa ci làmb ak nu mu mënti Modou moom moo yor li nga bëgg muy titre roi des arènes nga bëgg ko yombal nga bëgg ko yóbbul waa Pikine hmm. bu fekkee ni yow danga nekk ndaw soxla lu nga xamante ni nii tey moom nga bëgg a yóbbul waa pikin damay naan waa Pikine dal mbir mi man la ak Modou seen yoon nekk ci bàyyi leen ma jàkkaarloo ak moom wax ak moom li ma war a wax ak moom bu bës ba jotee ma bëree ak moom parce que tey dans la carrière euh, de de de dafa am retard bu mag a mag juróom at ci ci ci at yoo ko jénne euh, quand dara dootu fa des parce euh, doole ji du la fa xaar leneen du la fa xaar te Ama dafa war a am lu nga xam ne daf ko war a wuti ci làmb donc tey aujourd'hui man amoon mon niveau su ma yoroon Ama dama ko naan Ama dama réunir sa mbokk yëpp réunir sa staff yëpp nga

et chaque chacun doit tey jii ay mesures fermes pour que lii ñu mën ci jóge mu jeex parce que lii dafay indi euh, ragal gu nga xam ne man ragal naa ko ci combat bi depuis le départ je leur ai dit que combat bi ci combat yi ma gën a ragal la bokk. moo tax gars yi dina am est-ce que dina am. est-ce que dina am est-ce que bu amee jàmm dina ca loolu yëpp lu jar a laaj la xaj na arène nationale loolu yi tamit lu jar a laaj la

ama répliqué ne nee na ko bu dee yaa ma gën a pare dinañ ko xam gënoo ma pare li ci des nag ku gën a pare ku gën a pare bu ñu futteekoo ba dongali ba dugg ca biir géew ba dinañ ko xam. macha allah ndey boo amee conseil booy gën a jox euh, nga xamante a am ñu mooy combat dimbale promoteur yi dimbale ñi nga na parcelle woon ku nekk woo say ñooñ wax ak ñoom conscientiser leen calmer leen xamal leen ni contrat la ñu am dañuy dem remplir ko mais lépp na ànd ak dal parce que fair play ak sportivité je pense que moom moo war a régner ci mili du guerre waaye combat bu nekk gis nañ ko fi ñun. Mhm. Euh, euh, enjeu bu ne gis nañ ko fi. lu ne xew na fi. lu ne xew na fi man combat bu ne reporté naa. mbër def na fi lu ne. mbër def na fi lu ne mënuñu fee def lu mbër deful. mënuñu fee bëre combat bu ëpp enjeu yi fi yi fi weesu dóor mu daanu am na fi dóor mu am na fi caxabal am yanu dóor ci suuf am na fi lu ne am na fi mënuñu fee def dara lu nga xamante ni nii euh, amu fi woon maanaam luñ mais booy Yékini ak Bombardier ba ñuy wax bay wax ay corbillard fi lañu ñu fekk ah euh, Balla ak ak ak ak ak ak Yékini ba ñuy wax ba dugg ci coow lu nga xam ne dem na bay laal ay waaso fi la ñu fekk yeneen combat yëpp fi la ñu fekk kon nañu ànd ak dal xam ne mënuñu fee def lu kenn deful nañu ñëw bëre mu jeex ci jàmm.